bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonenteem ba sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul noo ngi ñaanal Cheikh Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ba lépp loo xam ni bëgg na koo liggéeyal Sëriñ Touba liggéeyal ko Cheikh Mamadul Basir waajuram wa mu defee ko nu mu ko soobee ci barke borom Touba noonu la ñuy ñaanalee ki nga xam ne moo fi toog toogaayu maam Cheikh Ibrahima faal muy Serigne Cheikh Jëmb Fall noo ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam waaye noo ngi ñaanal mboolem xalifa général yi Serigne Touba yëpp noo ngi leen di ñaanal jàmm waaye noo ngi ñaanal bu baax képp koo xam ne sol nga saw dal te lislaam ñor la ngay wax ashadu an laa la illallah noo ngi ñaan yàlla na yàlla defal la jàmm noo ngi ñaan ci weer wi nga xam ne ci lañ ne muy weeru Cheikh Mamadou Fadal Mbacké nga xam ne danoon yonente bi dañu lay kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal nu ngi ne ci aw weeram kon noo ngi ñaan lépp lu luñ ci def yàlla na ko yàlla nangul noo ngi siyaare bu baax sëriñ Moustapha Guèye ca Sàmm jàmbaari sëriñ Touba ja noo ngi koy nuyu noo koy jox wàccuwaayam di siyaare bu baax ay rakkam yëpp ak ñi bokkal sëriñ Mabé Guèye noo ngi siyaare bu baax sëriñ Jili Ñang kennal sëriñ Touba waaye Cheikh Abdoulaye Seck góor yàlla duñu ko fàtte waaye nag sëriñ Xaadim Jeng borom def gis noo ngi koy nuyu sëñ Mamor Mbakke moom sëñ Modou bu sa Jeng moom Cheikh Mamadou Fadal waaye di siyaare sama sëriñ sama bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Mbacke Madina Kane moom moom maam sa deex moom sëriñ Mor Kumba Kane moom Ibra Biige jàmbaar yi sëriñ Touba ja moom maam lay kañ borom siin lay maamun siin sayer sayer samba som ñanga amu demin tamit tëggay fanjaay Touré jax réew ba waaye noo ngi dem ba daaru ja di nuyu bu baax sëriñ Ablaye Touré ak njabootu sëriñ Ousseynou ture gépp noo ngi leen di ñaanal jàmm sëriñ Moodu noo ngi koy nuyu ak i waaye di nuyu bu baax sëriñ Moussa Touré ca mboor a ngi ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam soxna Mbacke noo ngi ñaan yal na yàlla dollee leeram émission bi nag tey dañuy waxtaane jàmbaar jàmbaar joo xam ni ku ne xam na ko ci yoon yi muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp daa bay maam Sey Ndiaye may say biige Kumba waaye ma ànd ceeg sama xarit sama soppe alaaji Bada Seen géwalu maam Cheikh Ibrahima Fall moom la àndal tey ci sama émission bi nu waxtaane Cheikh Rafal cay jikkoom waaye waxtaane ay calalaam ni mu sori sëtoo ci sërif gi ak ni mu sëtoo ci dammeel yi ak waxtaane ni mu bokkee ak réew mi maam Cheikh Ibrahima Fall ma war a jox kàddu gi nag sëriñ Bada mu nuyu bokki bokk taalib bi yëpp du door a dugg ci waxtaan wi kon sëriñ Bada kàddu gaa ngi nii bisimilah. mbokk yi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa ñaanal bu baax. Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ba li mu naal ci liggéeyal ko Serigne Touba màggale ko ba def yeneen naal ci kaw yi naalam ci barkeb Serigne Touba. noonu la ñuy ziare bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mu toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall te mat ko sëkk suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moom mboolem ñi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp barkeb sëriñ Touba. di ziare bu baax suñu buntu ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ñu koy wax sëriñ maam Ndiaye moom sëñ Baara Ndiaye moom sëñ Ibra Ngoone Ndiaye ñu koy siyaare bu baax di siyaare xalifaam di kilifaam di magam sëñ Mbacke Ndiaye ju ñaan yàlla sunu borom taxawaay bi yàgg ci buntu ko sëñ Baara Ndiaye di siyaare bu baax kilifa diine yëpp ak kilifa aada di siyaare bu baax jàmbaar Serigne Moustapha Guèye nii ko Baye Cheikh waxee léegi mu nit ku baax ñu dëkk ak moom waaye di siyaare bu baax Serigne Abdoul Sakkour moom Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Sakkour ñu koy siyaare bu baax di siyaare bu baax euh, di siyaare bu baax Serigne Basirou Fall. mi nga xam ni Serigne Talla Yaasin na ko jur maamam di Serigne Bassirou Awa Jaxate ñu duppee ko am fay ko ko ñu ngi koy siyaare waaye di siyaare bu baax nag kenn ci ñun ah seex Cheikh Gaynde Fall moom sëñ Daam moom Serigne Modou Mbenda jàmbaar jooju maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare Serigne seex te diggéey général waaye di siyaare seex Cheikh Badar Mbacke Kara ñoo ngi siyaare ñëpp di wàcce sunu kaddu ba kaddu gi ñëwaat ci ñun incha allah. jërëjëf Alaaji Bada Seen géwalu maam Cheikh Ibrahima Fall xam ne nuyoo nga ko tey nag nu war a waxtaane jàmbaar muy maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima nag buñ ko tuddee ñëpp xam ne Cheikh Ibrahima Fall la ñuy waxtaane ndax ku ne xam na Cheikh Ibrahima Fall ay jëfam Cheikh Ibrahima Fall ab jaafuñ la mooy ubbil alaaji Badar rek mu ñëw ci càlla léegi maam Cerno Birahim la bokkal am néeg ndax sene ba gay ak aram gay ak caane gay noo bokk ndey ak baay aram gay moo jur kumba jaañ mu jur maam jaañ mu jur soxna balla mu meññ maam seyna bu njaay mu meññ maam Cheikh Ibrahima Fall ba gay moo jur aala demba sene ba gay ak njuga demba sene ba gay ak mbërgu demba sene ba gay ak njaay demba sene ba gay ak binta sene ba gay Cheikh Ibrahima mbokkum réew mi binta sene ba gay la yóbbu Kajoor moom fa Ngoone Jeng Ngoone ñu yóbbu ko Lappé moom fa Fatim Fatim Touré màgg baax dem lappe am fa Kuro njaay ak Kumba Lawbe Ndiaye Kuro Ndiaye moo jur Lawbe Maram Xàcc ak Gayel Maram Xàcc Lawbe Maram Xàcc moo jur Absa Lawbe Absa Lawbe meññi Faat Isa mu meññi maam Cerno Birahim soxna Faati Bintu soxna Baat Bintu soxna Aminta Mbakke Gayel Maram Xàcc moo jur Mutufa Mutufa Tawloo Muudu Maxtaar Xaritaal mu meññi seex Abdoul Karim Touré maami Serigne Cheikh Lo Touré kon balaa ji bada maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Sénégal bada bu ma laaj maam Cheikh ci sa lan nga may indil ci maam Cheikh Ibrahima jërëjëf Baye Cheikh am na nu mbégte di sant yàlla bu baax moom mi nu karsanal nga tudd jàmbaar nga xam ne mooy yoon wi maam Cheikh mi ngi gane jamono Touré Atoumane Fall Touré Atoumane Fall li gën a siiw nag mooy njabi la ñuy wax tund njabi maam Cheikh Ibrahima Fall maam Seynabou Ndiaye la waajuram bu jigéen tudd. mi ngi gane jamono mi ngi gan mi ngi juddoo Njarawàqi la dëkk Njarawàqi la maam Seynabou Ndiaye dëkk maam Seynabou Ndiaye moo ma maam Cheikh Rahane Fall kenn la bokkal ndey baay moom maam Saliou Fall maam Cheikh Rahane bi maa ko roqee baayam wàccee liggéey noo jël maam Seynabou Ndiaye yóbbu ko Njóobeenug Belal ca maam Issa Alima Diop maam ci soxna Assou Diop ñu jël ko delloo ko njare jot ko Serigne Darou Assane Ndiaye maam ci soxna Boussa ak sëñ Abdourahmane ak sëñ Ousmane soxna Boussa ñu jox ko sëñ Balla ñu sëñ jël Balla Coro ñu jox ko sëñ Balla Coro kon maam Cheikh Ibrahima Fall mooy mbokkum réew mi maam Cheikh Ibrahima Fall nag Ahmadou Roqee Fall la bàyyam tudd Ahmadou Roqee Fall maa Amar Fall ko jur maa Amar Fall Birane Jëbi Roqee Njaay ko jur Birane Jëbi Roqee Njaay seer maram kumba ma Njaay bàjji wuruur ba Samba maram Birane Jëbi ca Ngaay jël patikuli li mandasin na ko jur ca daqaaru mandasin ka ci njëbi sayer kuli daa jàngi àddilum fuuta wàcc ñu jox ko soxna ay daloo am naar la muy ndaale ko am ci njaay aadi ak dembaadi ak dembaane njaay sanc pirug ndëri demba faal sanc yàjji loolu di tund ale mar faal dija mandasin daa dellu njëbi jël soxna mu mujja mandasin mu jur sandasin mu jur ahmadu faal ak biraan njëbi ak roqee njëbi ca njëbi mu jur ngunda ngoone ngoy ak ndeela ngoone ngoy ak njuga ngoone ngoy ak amar ñooñu nag Marie la leen jur Marie Sylla nag maam ko jur maam pen ngoone mbay manteer a kodde biraan jëbi ca ngaay jéyil paate kuli kuli mandasin damel may réew mépp ñoo fi jëkk taal daara ñoo fi jëkk damel ñu taawle yebal may sancal ko masar njool maay sanc tabbi aji ngoñ maay sanc xuppooy loyeen maay sanc ndand njàmmal maay sanc palmeew waaye njukki may sanc njukki péyëg maay sanc riisoo faal ak baañ yanqoo ba sanc ndër yaaye maay sanc mbelgoor pon maay nag moo sanc pëleen pon bicca ma njàmbal ak njóogu maa njàmbal des fa pëleen di wet ni seen baay bicca maa njàmbal taaloo dicca wale di wale taaloo dicca fa njóogu dicca fa njóogu ni man dinaa def ni sama maam daal di taaloo la tiru ji ñaax ko ji ñaax fej jeng bay beccaal ba mu sancal ko ndaat gànn sam boye mu sancal ko lukub ali biir biir nag la sancal ndërin jumére caam mu sancal ko xillari tase yi fi am nag mooy góor ak gaawan amar waane biram waaye di cafatu kulóor saat loo mbëri ngoon yi barke bi waaye Cheikh Ibra Fall Baye Cheikh ko neexoon kaaloo ni sërif la waaw jërëjëf alaaji Bada dégg ngeen alaaji Bada ko ndee càllale googu ba wax ci ñuq faam mi nga xam ne moo bàyyi woon faam Kunda njëkk sant Fall ñëw pëleen ba waral càllaleeg faaleen gi ñëw waaye damay dégg alaaji Bada ñu naan Cheikh Ibra Fall bu ko neexoon day kaalawu nepp sërif la ndax Ahmadou Roqaya Fall biran jëbi noonu koy waxee Roqaya Ndiaye Saliou Assou jooju loolu nag alaaji Bada bëgg naa nga wax ma kan mooy Cheikh Ibra Fall ak kan mooy maamam ci sërif yi jërëjëf Baye Cheikh loolu dëgg la Ahmadou Roqaya Fall boo dëggee ñu naan xam nga gaa yi bari dañuy wax Amadou Fall saar Ndiaye ñii di wax Sayer Ndiaye waaye Ahmadou Fall Sarr Ndiaye biran yi Roqaya Ndiaye maam Cheikh Ibra Fall ku neexoon kàllu ni sërif la biran Fall maamam daa dem jébbi jël soxna su baax suñu wax Saar Ndiaye mu jur maam Amar Fall mu jur Mahamadou Roqee Mahamadou Roqee soxna Roqee Ndiaye Saliou Assou jur ko Saliou Assou Sayar Maram ko jur Sayar Maram Mandiaye Fatim ko jur Mandiaye Fatim Bakar Wàqi jur ko Bakar Wàqi Samba saajoo ko jur Samba dem Demba Njare yàlla jur ko ba Njare yàlla Mbaba Buri Njéeme ko jur Mbaba Buri Njéeme Njaajaan ko jur Njaajaan Njaay Abo Daddaari ko jur Abo Daddaari nag Bakar Daaro Bakar Daaro Mar Koudiane Xattaab Omar Mar Omar bun Xattaab Noofel Abdul Asis Abdou Samad Abdul Manaaf Asis Abdullahi Abdul Muttalib mi maam yonent bi. jërëjëf Alaaji Bada kon daal Cheikh Ibra ab sërif la ay maamam yépp ña nga Makka waaye daa bàyyi lépp nag ànd ak Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul Alaaji Bada xam naa ni waxtu waa ngi dem waaye bu ñu bëggoon a xam Cheikh Ibra Fall ay ay kàddoom. yi mu daan wax ak diggam ak sëriñ Touba ak diggam ak mag ñu baax ak ak njabootam lan nga ñu ciy jukki rek waxtu waa ngi dem. Baye Cheikh yaa ngi tudd jàmbaar kooku bi mu ne sëñ Bamba yow ba ñëpp ni Serigne Bamba yow ndax nag seex Ibra Fall dama wax ni moom loo moo nekk koo xam ne day as gor ba noppi nangu di jàmm Cheikh Ibra Fall. ndax nag ku dul moomeelu Serigne Touba gi Cheikh Ibra mu mosu cee dugg ñu sant Fall bi sëñ Bamba ñëwee la yaa nii moom wóorut maa leen di moom a gën a wóor. la jox boppam Serigne Touba ni ko yaa may moom waaye nag bi mu nee ko yaa may moom ba noppi daa boole jëf jëf ji gën a rëy moom la boole xam nga gërëm yi bu toll ni Cheikh Ibra Fall ci ngor ga ci jom ja ci fitwa waaye ci bëggam nga yàlla suñu borom ba noppi mu wëlbati jox sëriñ Touba boppam ni ko yow bi mu nee Serigne Bamba yow nag bi gaa yi li gaa yi waroon def mooy ni ko yow a Fall kon ñëpp a jariñu ndax moom li fi indi mooy liggéey jariñu wan nañu tamit ni ñuy jariñu Cheikh ndax ndax war nañu ni jariñu sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ku ne xam na ni Sëriñ Bamba liggéey bi mu yoroon di ko liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu bari loo xam mënu woon a ñàkk jëmm waaye ki ko ci wuti woon nag mooy seex Ibrahima Fall moo doon soq daan wal daan root daan sàkkat kër yi di def loo xam moo ne dan sëñ Bamba kooku nag mooy ki nga xam ne moo ñu dimbali damaa wax ne Cheikh Ibrahima Fall li mu li mu dimbilee mooy man mii di wax ak yow sama buntu ci kër Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Baara Ndiaye sëñ Ibra Ngoone Ndiaye mi ko jur soxna Seynabou Diop a ko jur maam Cheikh daa dem kë daa maam Cheikh daa dugg ci kër jël fa ñeent. waaw ah Mamadou Diagne Diop mooy seen kilifa Mamadou Diagne Diop jur soxna Fat Diop Sayar soxna Fat Diop Sayar ah, mooy waa juru Aliou Fall ak ak sëñ Mortala Fall ñu bokk lépp. maami Serigne Cheikh Fall Mbaor mu baax mii ñuy waxtaane nga xam ni ku ne xam na ni digganteem ak Serigne Touba waaye digganteem ak Cheikh Fall mu jëli soxna Awa Jaxate Diop dëkkoo ko am ci Serigne aw Awa Jaxate mu jur Serigne Tallé Yacine mu jur sañ Serigne Bassirou mii ma doon waxee maami Serigne Bada Fall Cheikh Ibrahima Fall daal di jamaat jëli soxna Xëri euh, Diop mu jur sëñ Mbàkke xari Diop sëñ Mbàkke Xëri Diop ah yaa Xëri jóob maam Xëri Diop mi ko jur moo jur sëñ Mbàkke Fall mu jur sëñ Basiiru Fall alxuraan ak sëriñ di Jawrin sëñ Basiiru Fall alxuraan bi fi jóge bu yàggul yàlla na yàlla dolli leeram muy jàmbaar lool sëñ Basiiru Fall alxuraan ah, ak sëriñ ah, sëñ Mbàkke Fall do surtout sëñ Mbàkke Fall man tut man ko fayee maamam moom it sëñ Amdi Jawrin di baayam kon loolu mooy paalim gi nga xam ni tey jii man foofu lay siyaar waaye boo duggee paalim dangay dem ko sëñ bi Sakkoor sëñ bi Sakkoor ah wax naa ni soxna Debbo Sarr boo ko toppee moom it maamam day ñibbi paaleen nga xam ni réew mi ñëpp ak Cheikh Ibra Fall la bokk kon mbokk yi ñu doon topp ci suñu sit bii ñuy wax vingt 24 actu ñoo ngi ñaan yàlla sàmm nu te aar muy site boo xam ne nag tubaarkal la Baye Cheikh di am lu am solo ñu ñuy déglu nag ci suuf te amaana liñ ci xam te xamuñu ko ñun ñuy béem a wax ci Cheikh Ibra Fall ngir ak bëgg nan xam ni yàlla rek a tax ak yonent bi Cheikh Ibra Fall kenn ku ne kala ci boole rek ngay sant kon jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baye ñoo ngi baax Dakar Acte di ñaan yàlla na 24 Acte yàlla na wër réew mi wër bitim réew di ñaan ci réew mi jàmm réew mi ñoo ngi ciy ñaan jàmm ak bitim réew ndax fi réew mi ay sénégalais fi nekk waaye bitim réew ay sénégalais fa nekk kon yàlla na réew mi am jàmm. jërëjëf Alaaji Bada ndeysaan tey nu àndante ci waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, laman cefu njoogu maamam mi jur amari ngoone sabel mi libéré kajoor ak bawal ma samba takko ak ma xuro jaag biram mbanga ak daaw demba ak maajoor fatim golle ñeeg biram yaasin buuboog dëcc maram gaar gu lasukaabe ngoone jeey mi maamam tey daal am na nu mbégte xam naa ni li nu mayan waxtu jot na waaye noo ngi sant bu baax sëriñ Bada Seen mi nga xam ni moom la ñu àndalan tey Euh, ci dalal ko ci waxtaani maam Cheikh Ibrahima Fall ci seen télé bu mag bi muy 24 actu nu àndante ak yéen par 15 jours bu ne par alxemes di leen indil ak bokk waaye di waxtaane jaar-jaar yi di waxtaane mbokk gi di waxtaane jikko yi comme ni ko ba da waxee nag ñu nag yàlla daa dogal noom ci bëgg di ko wax waaye am ñoo xam ne ñoo toog ñu déglu noonu gën a xam waaye nag dañuy jëm rek kon noo ngi ñaan lépp luñ ci wax maw yoon ñu ngi koy sant yàlla lépp lu ci dëng noo xam ne doomu aadama matul seen site internet bu solo bii di 24actu yi noo ngi siyaare bu baax maam Thierno directeur programme waaye sama caméraman bi ma jàkkaarul Serigne Moudou Diouf Serigne Mbaye sekk euh, ci ci ci ci ci ci montage bi directeur programme moom itam ñoo ngi koy nuyu bu baax di ñaan télé bi yàlla na ci yàlla def ndam kon nag ñoo ngi leen di jox rendez-vous ak dox daje benn 15 jours bu ne ñoo di leen jeen jàmbaar incha allahu rabbi noo ngi ñaanal ñëpp jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.